mbokki dal leen jàmm ci li gën a fës yett yëglekaay yi ñu commencé kook leen fa yéenekaay mi desuwaat ci campagne bi nga xamante ni président Macky Sall fas yéene na koo jublu di ay tournée économique yoo xamante ni mu ngi ko commencé tàmbale ci diwaanu Kaolack Kaffrine Fatick ak diwaanu Kédougou yéenekaay bi ne ci weeru novembre bi la ñu fas yéene tournée yi ay tournée économique conseil présidentiel ba ci conseil des ministres délocalisé lii tax yéenekaay en tout cas ci jamono économique donte nag soññaan na ministre yi ñu gën bàyyi xel nag jafe-jafe askan bi préoccupation askan rawatina ci jamono ji nga xam ne coole moom ci électricité bi courant bi nga xamante ni ci ni jamono ji seer na lool lépp moom président Macky joxe na ci ay mesures vox populi tuddee campagne président Macky Sall na campagne économique et politique ndax jàpp na ne mbiru politique daf cee rax te du ñoom kase ndaxte Barthélémy Dias jamono ji maire bu Dakar moom que candidat wu benn bokk yaakaar nekk premier ministre moom mooy njëkk a commencé ay tournée am nag ci diwaanu Saint-Louis ak Louga bu noppee président Macky Sall jël jëm ci diwaanu Kédougou Kaolack Kaffrine ak Fatick fekk jamono jooju nag juge Sabassy Faye moom li ñëpp doon xaar ci moom mujjee na koo def te di notification bi permettre nag Ousmane Sonko mi mën a am accès nag ci fiche de parrainage bi yéenekaay mu ngi ñu xamal ne ni ki démb la ko fësal fësal ko ko décision bi nga xamante ni jël na ko ci wàllum radiation Ousmane Sonko ne radiation bi ci boppam moo àndut ak yoon donte

certification njuumte njuumte yi moo tax juge Sabassy Faye daal jël décision dugalaat Ousmane Sonko mi ci fichier électoral bi fekk jamono jooju laa la wax ay jafe-jafe commencé naa am ci aéroport international bu Blaise Diagne ndax travailleurs nag ñu ngi jëm ci ay grève tension yi métti lañ fee séentu ci fan yi ñu jëm la sàkku nag ñoom travailleurs yi moo dañu yokkal leen seen salaire te mel nag ñoo ngi koy sàkku depuis octobre nee nañ nag lu ëpp tuuru te conseil yëngal ci fan yi fi yëngatu ba noppi kay mu di assemblée nationale ndax jamono ji bureau bañ fa taxawal danañ ko tas tasar daat koy taxawalaat ndax respecté nañuy joxee nag poste yi ba noppi am na ci ay ministre yoo xam ne dañoo assisté woon bi ñuy defar bureau assemblée bi comme respecté nag règle yi dañuy tas bureau boobu daal di taxawalaat beneen bureau enquête yéen kay moom ubbi xët bu yaatu jagleel ko Xalifa Sall mi nga xamante ci parti élection présidentielle yi ñu jëm lii yëpp di ay yaakaar yu tas ci côté am naka noonu tamit ay mbokk socialiste wax kenn wuy siwu ko ci woote gi lii tax yéenekaay bi di xam le ne Khalifa mii dina compliqué loolu laa la wax mu am ndam ci élection présidentielle yi di ñëw donte nag mu ngi séentu ay alliés ndax bu ñu demee ci parrainage bi ba rëkkale yenn ci ay candidat ñu ci bëri ci ñoom nag ñu ngi séentu ñu daal dem ci Khalifa Sall l'observateur moom di ñu nettali mbir bu doy waar am ci immigration clandestine bi ndekete ay soxna dong nag ñooy dem ci géej gi am na ci kenn koo xam ne mu ngi xam ci biir yéenekaay bi ne man bi may jël gaal gi di dem ca bitim réew fekk na maa ngi ëmb ba diis toll ci waxtu yoo xam ne damaa war a am doom ci biir gaal gi ci digg géej gi laa mujjee am doom doom bu góor laa amoon waaye ñi nekk ci biir gaal gi dañoo jël xale bi dugal ko ci biir géej gi nii laa ci toll ba tey ji laa la wax jotaatuma ci sama doom may laa ci rek léegi lii lan moo ko fi jar lan moo jar lii ah yéen nag jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm incha allah